Euh, on, on parle de société civile Maintenant, <coughs> société civile farou pouvoir farou opposition mais hmm. souvent c'est seeni combat euh, euh, presque combat opposition bi lay nekk lan ngeen mën expliquer comme comme ban combat c'est-à-dire aujourd'hui euh, le troisième mandat opposition bi war na combat mais faut bëri tey loo xam ne pouvoir da koy def amaana du ñu dégg société civile wax ne Nous na lu ci plus souvent l'union des dégg mooy société civile buy critiquer le régime en euh, place nous nu mu tuddati Fatou Abdoul Bonne une une question au troisième mandat. Euh, ça, concerne la société. l'opposition. non non non ça concerne tout le monde ça concerne d'abord le citoyen sénégalais parce que Mirum, troisième candidature doit figurer sur une charte fondamentale La constitution nag sénégalais yépp ko et c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas commettre ça, c'est clair en général en général la société civile n'applaudit pas parfois Non. nga ne moom côté non pas seulement ce point ci nga peut-être la troisième candidature de Macky Sall dafa am benn ponk bi nga xam équivoque boobu dama ko bëgg mu mu clair xam nga lan mooy la richesse de mouvement comme Y en a ak yeneen mouvement yu juddu Sénégal ak Afrique mooy justement dafa am ay question yi nga xamante ni euh, ci ay jamono dañu foogoon ni question wu politiciens yi rek ñoo ko war a waxtaanee mm. alors que non c'est des questions hautement citoyennes Mirum euh, constitution du Sénégal ça a été ça d'ailleurs moi j'ai mouvement yu mouvement ni en 2011 nga y yenn questions yi je ñu débattre sur les plateaux avec vous les experts la question du franc CFA la question de la monnaie en Afrique c'était l'affaire que des économistes mais le mouvement populaire nous avons ñu jël ko di artistes yi dugg ci di jël di jël di jël di jël yi technique yi di ko quelque chose d'accessible au bas peuple ça a été important donc ci mbirum euh, troisième candidature démocratie constitution droit de l'homme gouvernance globale que citoyens aussi nous bolé ci seen loxo lu am la ci et je pense que nous ñu dans dañ ko nawé Sénégal té lolu dañ ko wara préserver c'est pas que pour les politiques mais nak c'est le combat de tous L'un ni nak moy ñi ñu jité mais attends non seulement dañ leen dañ leen dañ leen fal pour ñu def ko ñu jox leen les moyens de le faire mais au-delà de ça, les moyens de pouvoir communiquer. Mais le gouvernement, il a assez de moyens pour pouvoir mettre en place une politique de communication pour fësal le gouvernement bi di def ñun li ñu tax a jug mooy suñu réew yi nga ressources yi New York, c'est inéquitablement euh, redistribué. li yor as ay élites la fal. ñu dem ba ca kaw fàtte tax ñu fal peuple bi nekk fi di donc on a assez à dire ci li suñu peuple souff souffrir on a assez à dire qui sont les mi on a assez à dire qui sont l'école bi on a assez à dire ci suñu mbirum démocratie ci suñu mirum l'ENEN ak l'ENEN, que d'applaudir un pouvoir boo xamante ni dañ leen fal jox leen ay moyens pour que ñu liggéey jox leen aussi des moyens pour que nous fassions li ñuy def donc nous mouvement Yanamar, bis bu mu taxaw fi nek ben organisation c'est pour applaudir le pouvoir quand il fait le travail pour lequel il a été mis ici il n'aura plus sa raison d'être donc ça c'est pas notre rôle maintenant maintenant hmm. am une organisation société civile yi nga xamanteni ñu ci complexe bobu parce que un de yenn question yi buñ ci pouvoir bi catalogué len ne a opposition ngeen est rek ñu le la donc ça leur permet de les neutraliser et que pouvoir continuer de dérouler les muy dérouler les nga xamante euh, du intérêt au peuple bi et l'Union ñun mouvement Yana a marre ak yeneen ak yeneen mouvement ay activistes de l'olomom, euh, mënuñ ci mënuñ ci peuple yi ñoo ñoo et on a assez de problèmes

Euh, journée c'était une journée assez chargée déjà et assez lourde pour que nous dem di fekk ay garde du corps Ousmane Sonko Bir, euh, euh, nu tribunal di de façon aussi spectaculaire par un corps d'élite alors que ñom ku ci nek amna nous kër mënon nañ comme bép citoyen nit ñu leen koy défé ñu dem jox leen euh, nu mu ci convocation ñu dem répondre en citoyen bu ñu bañé nous mhm. ah ñu dem jëli leen lolu c'est une première chose mhm. mais dafa am li nga xamante la plupart des sénégalais mom lañuy wax musna fi tok seen plateau ma commenté ay images yi nga xamante président Macky Sall bi mu tourner vers le nord aux côtés des forces régaliennes c'est-à-dire la police nationale la gendarmerie les corps d'élite euh, nga gis ay nervi Mhm. ñuy attaqué wu à des citoyens di leen dóor di leen këdd di dugg ba ci biir kër yi di leen génnee di leen humilier loolu fu mu mujj mhm. fu mu mujj nga gis ay dér yi nga xamante ni Marius Sagna ak d'autres camarades du frappe ñu dem Malicounda aux yeux sous les yeux de la gendarmerie nationale nous leen di xëpp suuf di leen di leen di brutaliser nous ci hôpital certificats médicaux yi nga incapacité de travail de 7 jours ñu def plainte avec des pièces à conviction des photos ak dem gendarmerie nationale qu'est-ce que cela veut dire. veut dire que c'est très rapide c'est très très expéditif c'est très expéditif c'est eux que ça concerne Les des droits de l'homme mouvement les activistes les opposants politiques mais c'est de l'impunité C'est ce que je et j'avais fait un keroog je ma disais, Lolo. Lolo la ma suscité et j'ai fait un article dessus mon sur euh, sur c'est cette lecture que j'ai de cette affaire là Je mhm. bëgg moy mbirum pap ko. ci ci sañuñ ci a ci euh, déjà euh, arrestation secret défense ak li nga xamné ne nañu ko ci biir déjà cap mi ngi combat ndax ngi ci biir ak lan ci position. man tay ci suba dem naa fa mouvement Yanamar. mais ñaari casquette laa fa demee. bu njëkk bi mooy en tant journaliste. Mhm. Euh, dem foofu manifester soutien de principe à, voilà, à Pape Alé et à la Corporation de journalistes, mais au-delà de ça, en tant que militant euh, du mouvement Yanamar, militant de la démocratie, euh, pour euh, soutenir soutenir coordination des associations de presse qui combat pour la libération de Pape Alé mais au-delà de la libération de Pape Alé pour la liberté de la presse parce que presse de femmes dafa solo ci les gens pensent que c'est banal mais y a de plus en plus bu manifestations. ay manifestation ngay gis ay des des caméra bi caméra et puis euh, Dakar euh, très brave des manifestation yu de l'ordre brutaliser des journalistes dans l'exercice de leur fonction gis des journalistes même dans des lieux de guerre mais ñi ko sekk dañuy xamni ki journaliste la liggéeyam lay def dañ koy mm-hmm. épargner mais boudé au Sénégal bàyyituñu xel entre les bandits ak les journalistes lolu vraiment euh, c'est pas normal et donc motax combat bobu ñu ànd ci ak coordination des associations de presse ñu japp ni dañ leen ci mm-hmm. wara dolel mais au-delà de ça mbirum Pape Alé da ngay xol même dans la pratique ya jum Macky Sall mom moy de bi ko ciyee dañ ko japp pour deux chefs euh, d'inculpation yoo xamante c'était juste pour garde à vue mais après bu ñu la jàppee ba pare lañuy dem seeti lan ak lan la ñuy jëli pour teg ko sa ndodd du procureur di ko jël parce que mm-hmm. au niveau de la chancellerie lañ koy jox ay mbir ci kaw c'est le président de la république ñuy chargé dossier bi chargé ko ba fexe dugal ci ay articles yoo xamante ni c'est clair que bu ñëwee auprès du procureur dañuy dañuy mandat de dépôt donc c'est une pratique mm-hmm. et cette même pratique a été utilisée par des sénégalais yi nga xamante ni tey ils sont en prison nit ñi ñu ngi leen bëgg fàtte prison te liñ fa nekk du dëgg di yoon mm-hmm. jaay doole moo leen fa bàyyi ku melni ni Karim Gueye ku melni ni Cheikh Omar Diagne ku melni ni Ousmane Diagne ku melni ni Papito Kara c'est des sénégalais yi nga xamanteni pour yenn yi nga xamante ñu ngi leen koy reprocher au pire des cas dem nu mu tuddati yóbbu leen procès en flagrant délit ñu ñëw taxaw avec leurs avocats ils se défendent au pire des cas encore que li tax ñu leen di top dans des démocraties yi nga xamanteni elles sont dignes de son nom ñu leen ci sax yóbbu garde à vue waxatuma la mandat donc vraiment c'est pour dire que vendredi Inch'Allah, euh, coordination des associations de presse Wote bi mu nous euh, marche bi ñun dinañ ci dem dinañ ci dem pour la presse pour la libération de Pape Alé mais nous ci dem aussi pour la libération de tous ces détenus yu ni Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ñom Papito ak ñom Ousmane parce que trop c'est trop. ñu ngi leen ñu ngi leen dañu bëgg rek nga ko par rapport ak cette sortie de Birame soulay mhm. il nga xamné bobu Bataïdane ba mom daanaka moom sur les réseaux sociaux. il refuse li nga xamné ne euh, moom la ñu qui ci seen parti jëm ci rek lu ñeel walu cumul euh, de mandats bu ñu voyez, peut-être loi interdire ko mais autant le président la Maxal que la morale et la loi même l'interdit loi constitution doit interdire une troisième candidature. au sein de PASTEF nous ñu teree loolu. gis nga sortie boobu ñaari chose ñaari mots la ma inspiré premièrement moi arrogance et aujourd'hui nous sommes tous les sénégalais yi bokk na ci li tax sanctionné régime Abdoulaye parce que nous ñi dañ gens ba sont arrogant avec euh, le peuple avec tout le monde Le régime Makissal, Macky Sall ñu ci gens qui loolu lañ reproché cette arrogance tey sotiyam bi gis na ci arrogance. way gis na ci wax waxet c'est vrai que amout loi bu ko teunk mais dans le programme jotna son organisation pastif lolou la jaay sénégalais ne ñun sax nous sax ñu yegg pouvoir bu ñëwee que ci situation bobu opposition bu ñu amé ñaari mandat dañuy bayyi benn bi parce qu'il y a d'autres sénégalais qui peuvent valablement remplir yenen yenen yenen yenen poste donc bu ñëwee n'est ci situation situations defuko muy di tenir ce discours là j'estime que c'est au parti Pastef de prendre ses responsabilités.